bokk yi nuyu na leen kenn ku ci nekk jox nañ la sa wàccuwaay tey yéen a ngi ci douzième édition safar daayira marché Grand Yoff fi woote ko ñu ànd ceeg ay taalibe murid yu mag ay soppay si Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul tey ñu ngi fii ci tali marché Grand Yoff bi fas yéenee féete ak màggal bisu safar xanaa dañuy ànd xuusandi ci biir dinañ waxtaan ak kilifa yi dinañ waxtaan ak responsable yi parce que tey gis nañ fi ay leeri Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni waaye gis nañ fi ay leeri Serigne Fallou Mbacké ibnu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul kon tey dinañ jàkkaarloo ak ay kilifa dinañ waxtaan ak ay kilifa waaye dinañ waxtaan ak ay taalibe waxtaan ak ay responsable mbokk yi nañ xuusandi ba ci kanam. fa la mbirum mépp nekk. bi sëñ ma coo paxa xëyee ñëw ci sëñ bi na ko day suñu borom war na ma ñaari wàlli lahul mahfuz yëpp waaye nag li ma bëgg mooy nga rafaatale ma ko mu des ci man ma bañ ko fàtte saa yu ma ko bëggee gis ko sëñ tubaa ne ko sama borom nangul na la ko moo tax sëñ tubaa kenn xamut lu mu léegi nag sëñ ma coo bàyyi na loola léegi xam nga lu muy wax danaan ahmadou diaw malikul noaad wal luxawi yii na loolu la daan wax bàyyi na loolu nag léegi dafay lan lay wax nag wa min xaqatul xaari sultaanul aarifin mooy prince mooy kilifa mboolem aarifina yëpp góor yàlla yi ñi xam yàlla ñëpp nee mooy seen njiit wa min xaqatul xaari bi bu gaa yi dajee ca yàlla maay tudd gi nga xam ne man maay tudd di leen séddale taalibib sëñ Tuubaa la mooy njiitul aarifina yëpp waaye moom mooy séddale gaa yi bu ñu ca yàlla mooy séddale kon kooku bu nee taalibib Sëñ Tuubaa keneen koo mën a doon boo boo nekku taalibib Sëñ Tuubaa nun loolu du nu yëg du moo tax benn waykat daf ni Sëñ Tuubaa xoolal ñii mu tudd ñii may bëgg a tudd nee na boo xoolee doy nañ sëkk ah siyaar nañu lépp jërëjëf Mbacke eh, nan la. bu baax a baax. tey daayira marché bi ngeen woote seen douzième édition mu nekk wàccaay màggal nekk guddi safar. tànk seen porte parole. jërëjëf. noo noo noo dundee bis bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu. xanaa di nuyu waa daayira bépp ci njiital jëwrin Cheikh Mouhamadou Baara ci daayira Xaddaahil Faddaahi bi maanaam ni ma dundee safara gi bis Serigne Touba bi maanaam mbégte ndax lii mooy douzième édition ak waa marché bépp ak waa daayira bi. di ci sant suñ Tuubaa di ko laytaaye bis fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safara ndax Sëriñ Tuubaa daf ñoo defal loo xam ne mënuluñu ko suñ bopp suñ ndey mënuluñu ko suñ baay mënuluñu ko ndax liggéey ak jaamu yàlla lañ Sëriñ Tuubaa sant te mboolam ñi nekk ci déere bi yëpp yëpp yëpp ci loolu lañ tëggu dayre bi nag at mu jot dañuy taxawal safar boo xam ne si dañ ko lay taayee ki màggal Tuuba jàng ay kaamil bu weeru teroo ba léegi ñu wàcc di wàcc ay kaamil su léegi ñu wàcc alxuraan kenn mënut wax li alxuraan bi sell def ko addi Serigne Touba Xaadimu Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam Serigne Touba digle ndax Serigne Touba lépp muy def ci alxuraan la koy tàmbalee ba ci bis bi ju fanaan ni guddi gi fi ñu toll nii sëriñ sëriñ Ousmane Mbacke mooy bëgg jël bu paree sëriñ Xaadim ngay jël sëriñ Gànna Mesere sëriñ Massar Fall xombal ak kuréel yi jeex na ñu sant nag mbooloo ñu nekk waa bitim réew ndax dafa ñoo xam si ne ñoo ne ci bitim réew dañoo newoon Grand Yoff nekk bitim réew ñu nekk Brésil ñu nekk Argentine te dañoo jàpp ci liggéey bu baax a baax sant di ko teg ci ndogal sëñ Modou Ka ak sëñ Cheikh Diop di leen wax ne sant nañ bu baax a baax a taxawaay bi rafet na trop ñu ngi ñaan daal ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla na suñu borom def lépp aaju ci waaj indi yàlla na ko borom def faj ci barke sëñ Touba maa ngi jégalu damaa xaw a am temps ndax ñu daam ko xaaral léegi nii incha allah. Diop siyaar nan la. maa ngi lay siyaar bu tey nga ànd kilifa gu mag ànd kilifa gu foor gu riis ci yoonu murit ci barke baayam ba Serigne Fallou Mbakke muy soxna maam Faati Mbakke di yaakaari Grand di yaakaari Ndakaaru. musul tànqam lu kenn tey mu ñëw ci guddib safar gi di douzième édition daayira marché Grand fi di ko def tey ana lan mooy lan moo war a seen teewaay ci bis bi. waaw li ko def mooy xam nga safar moom ñi ko bàyyiwul xel mu ngi mel nii nga bëgg a def bis di def avant premier bi safar avant premier màggal la te màggal sëriñ Touba ko woote te moom mooy Serigne Touba. fi mu toll nii buñ noonu kan la ñuy sant ñu ne sëñ Touba ñu ne ko fii sëñ Touba ñu ne soxna Maam Faati te dafa am bénéfice boo xam ne murid yi bàyyi wuñ ko xel mooy tey bu fekkee dañuy màggal Touba ma tax 45 la ko sëñ Fallou njëkk a woote ci Touba nee na ma ñëpp fekk Touba nu màggal fi sëñ Touba kon ku màggal jotee xel yëpp dem Touba rek nan ko sant baayam buñ dee ay bi nag te yaakaar seriñ bi mu ne fi di seriñ bi nuy def avant premier màggalug maamam gi di def ko def ko ngir li ko sëñ Fallou woote coonaam du ko fekkee mun a day bàyyi itteem ñëw ngir sëñ tubaa rek loolu mooy li ko indi ngir sañ tubaa loolu rek mooy ay tànkam. taalibey murit yi di waajal bisu màggal ana ban ban yóbbal nga leen jox ci màggal gi. waaw yóbbal bi moom li nga xam ne nii Serigne Touba da koy digle saa su ne bu dee baatub araab bi tax taxsimo bi sunnati yàqodu naa lil jannati sëriñ Touba lu muy def ci sunna la koy def nanu bàyyi xel ne demuñu sorti sëriñ Tuubaa moo woote ne kaay leen sant la yàlla jàng leen alxuraan bernde leen gan ñi bu kenn xeeb ginaar bu kenn yéem giléem kon ñii dem Tuubaa nanu xam ne demuñu sorti demuñu xumbal demuñu fuural dañuy dem ci dëkk bu yàlla laabal dëkk bu yàlla seddal ku sedd ne fa woote fa santu yàlla kon nanu def ni dëkk bi wormaal bi nanu mel ni waa dëkk ba nanu wormaal li dëkk ba laaj nanu def noonu loolu mooy itte jeeg bu ñuy dem Tuubaa nanu xam ne ñu ngi jëm ci dëkk bu yàlla gërëm ku ñu gërëm ne fa mu woote lu gërëm kon da war a gërëm sa bopp doog faa sang bi sant na la gërëm nan la. ci bis bi nga xamante ne ñu ngi koy defal Sëriñ Tuubaa fii ci bi. Sëriñ Baara. ngay jëwriñu daayira bi. jiite mbooloo mu takku mi tubaarkàlla macha allah ay at ci ren ren di douzième édition safar gi muy wàccaayi màggal gi. ana lan moo dox sa diggante dongo yi nga jiital tey ba réussir ak ñoom bis bi. waaw dongo yi li nga xamante ne moo dox suñu diggante day dañoo bokk loo xam ne mënuñu ko séddoo muy Sëñ Tuubaa ñu tasafi nag ñoom ñëpp nekk ci marché bi bokk pas-pas ñun ñii di jëwriñ ji sosuñu daayira bi waaye ñi ko sos ay mag lañ ñu nekk ci seen suuf di roy ci ñoom. ba ñu dem daanaka ba mu des ndaw ñi yàlla dogal ma nekk ci seen kanam ñu bokk pas-pas moo tax ñu mën a dajaloo ñun ñëpp. jëwrin bis bi yàgg bis bi yàgg naa yaatu bis bi yàgg naa foor bis bi yàgg naa neex tey gis nañ fi gis nañ fi sëñ doomi Serigne Modou Kara Serigne Ousmane Mbacké hmm. gis nañ fi soxna maami Faati Mbacké gis fi ay kilifa yu bëree bëree bëri bëri ana ana nan ngeen def ba ba ba liggéey sang yooyu tey ba waral seen teewaay ci bis bi. waaw maanaam sang yooyu li waral seen teewaay ci bis bi ñun dañ di seen i taalibe maanaam seen i dong lañ liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey muy sant sëñ Touba ci bisu safar bi. ñoom seen maam lañ koy defal kon nag li tax ñu koy defal seen maam moo tax ñoom ñëpp ñu ñëw di ko ànd ak ñun waaye ci kaw ànd gi dañuy dem ci ñoom di saafoonte ak ñoom xamal leen liggéey bi fi mu toll ak niñ ko bëggee ñu ñëw xam ne li ñuy liggéey ñoom lañu koy liggéeyal ñu ñëw di ko ànd ak ñun ku ci mel ni Serigne Ousmane Mbacké mii nga xam ne moo doon waxtaan di ñëw ci bis bi ki nga xamante ne mooy buntam ci bis bi ba mu tàbbi ci mooy Serigne Modou Kara Dieng nga xam ne mooy soxna Mame Faty ki nga xam ne mooy suñu bunt ba mu mën a teew si bis bi mooy kii di yor micro bi tey di wax nga xam ne ci daayira bi la bokk muy jibi moom moo ñu tegtal maam Faty boole ñëw moom bañ ko ñamee ba tey mënatuñ ko bax te dañuy ñaan rek muy gën di teew di ko ñaan mu gudd fan ku ci mel ni sëriñ Abdou Khoudoss Mbacké mu sëriñ Modou Kara ki nga xamante ne bi mooy buntam ci tàbbeek ci mbooloo mi muy Serigne Modou Sarr moom la amanteel kóllëre loolu moo ko tàbbal ci bis bi loolu moo fi indi kilifa yi. tey ñuy waajal màggal tuubaa fii ak fan yu néew ah ana tey yéen lan mooy doon seen taxawaay ci biir Touba yéen waa marché beeg waa daayira bi waaw loolu dañ ci sant yàlla bu baax ndax ñun ñi Touba lañ dëkk ñi ci ëpp Touba lañ dëkk waaye jàpp naa ne bis bii moo ñu fi bàyyi ñun ñëpp. li nga xam ne moom lañu amal fii nag waajtaay rek waaye li ñu am lépp fas nañ ko yeneen takk dem jëbale ko sëñ Tuubaa ci bisam bi wàññi lax laxasuwaat ñëw liggéey si ndax bañ ko ñamee ba tey bayetuñ ko ndax luñ ci def ren bu déwénee sëñ Tuubaa ful ko te yëg nañ ko ñun ñi koy def ñëpp. keroog keroog ñu gis ci ci ubbi tey Masaalikul Jinaan bi marché Grand Yoff def délégation bu rëy gaare ay oto gaare ay kaar def ci ay ñam ak i teraanga jubali ci jumaa ji est-ce que yu mel noonu di ngeen ko continuer ci yeneen bërëb. waaw incha allahu rabbi ndax loolu day li nga xam ne moo gën a fes ci liggéey bi ndax day jëf ju kenn mënta nëbb. waane li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci lu mel noonu bari na loolu itam ñu ngi ciy sant uh, suñu baay uh, waajur Serigne Jamu Faam nga xamante ne bi ginnaaw bu Serigne yu fay nekkee représentant xalifa général fii ci dakaar moom fii ci Grand Yoff ci marché bi moo fi représenté Mbacke fay. lépp ndigal loo xam ne jóge na Touba ñëw ci Mbacke Faye dina rot ci moom bu rotee ci moom ko ci ñun donge yi keroog bi nga xamante ne ndigal li rote na ci marché bi dafa woo daayira fi nekk yëpp adaa equl bii ñu nekk ak daayira bi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw sëriñ Mbacke Diop jiite ko albarakatu wal xidma ak daayira bi nga xamante ne moom suñu mbokki njaamur njaamur yor ñu woo leen wax leen maanaam ni ko sëñ bi bëggee ñoom ñëpp ñu dellu ci seen mbooloo waxtaan ak ñoom kenn ku nekk ñëw feeñal ci yéeneem ñu ànd liggéey boobu. te liggéey boobu sax dafa mel ni ndimbal sëñ bi dajee feeñ ndax ñun yàgg nañu yëngu ci bëgg a fédéré daayira xam ne ñoo nekk Grand Yoff te mënuñu ko woon waaye bisub daa mel ni liggéey nañ ci liggéey boo xamante ne bii ubbi na yoon woo xam ne buñ ko wàccut liñ bëgg dinañ ko am waaw kon ñëw gi ak liggéey boobu ñu liggéey lépp ngëneel lañu ñu jural ñu waaw. jëwriñ sant nañ la gërëm nañ waaw jërëjëf maa leen sant leen gërëm ba maa wax ba bàyyi te waxuma ci commission yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci biir daayira bi ndax daayira bi dafa yaatu am ay commission góor ak jigéen commission bi nga xamante ne moom moo ngànk liggéey bi mag ñi fi nekk ñoo ko jiite muy Serigne Pam Ndoy ñi toog Serigne Ibrahima Mbodj moo Modou Ndiaye ak Serigne Cheikh Niang ñu ngi leen sant baax leen gërëm beneen commission bi nga xam ne moo ci nekk ki ko jiiti mooy Serigne Mor caan nga xam ne saa su ñu yegsee ci waxtu wii ñi nga xamante ñoo féete ci wàññi bu ñu sottalee li ñu def ba pare moom li nga xamante ne moom lañu fiy naan ak di ko serloo commission boobu moom moo ko ŋànk moom Serigne Mor Thiam moo ko jiite ak moo ñu àndal. ñi nga xamante ne mooy commission bi ŋànk wàllu bernde ci waañ wi Serigne Kàbbu Mbay moom mooy ki ko jiitee moo soxna Miss Bintu sàmm waaw noonu mënuñu woon a wax ba pare te duñ ko duñu duñ duñ ci jarale lool waaw jërëjëf ñu ngi leen sant bu baax den gërëm te rafetlu seen taxawaay nag tey ñaan ngeen yàgg fi te wér te ñu yàgg ànd ak yéen bis bi ci barke Sëñ Touba te lépp luñ ci am muy ngërëm it yàlla na ko Sëñ Touba boole jër ngeen jëf. sang bi ginnaaw bi sante gërëm la tey waa marché bi daara marché bi woote douzième édition wu safar. di wàccaayu màggal nga teew fi teew fi sa jëmmi Baay Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yaakaari jàmm ni waaye te fi sa jëmmi maam maam Thierno tey sëñ bi ban yëg-yëg nga am ci bés bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim daa bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax suñu yaakaar tey ko ci ji Cheikh Ahmadou Karim Mbacké rek lay doon ndax euh, wax nga ko léegi bokk taalibe yi faree ci marché Grand Yoff bari nañ ci ay wóllëre waaye ku ci mel ni Baye moodu di suñu mbokkum taalibe di suñu xarit di suñu lépp yëgaloon ñu bis bi te wax dëgg yàlla mu doon koo xamante ni bii ku sori la ci moom ba lum ñu mën a woo rek dinañ ci ñëw waxuma laa nag mu woo ñu loo xamante ne bii subaa ngoon guddeeg bëccëg ci loolu la ñuy dox muy liggéeyal Serigne Touba gis ngeen jotaay bi ni mu demee taaru lool ñu fekk fii suñu wayjur Serigne Ousmane moom Serigne Khalid moom borom Daarul Moxti muy waxtaan ci ku tedd ki di waxtaan ci taalibe yi àndoon ak seen bu mag bi kon loolu mbégte lay doon ñun ñu teew ci jotaay bi ngir teew lu waxtaan woon sëñ bi umpulewul nit ñu ngi ci wàccaayu màggal taalibe yi murit yëpp di waajal dem Touba ana ban ban yóbbante ngay jox taalibe yi ci suñu doxalin ci seen teewin foofu ci Touba. waaw loolu moom defe naa képp ku amuk seetlu mm, defe naa ni du sax aaju ñu lay sooy ndax bu ñu xoolee suñu kilifa yi nga xamante ne bii. ñoom lañ jox suñu lépp damay tàmbalee ca nga xamante ne bi mooy kilifa ñëpp di Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir di ñaan sama borom yàggal ko loolu te wéral ko danaa li mu naan ngir liggéeyal ko Serigne Touba yëpp sama borom kàttanal ko ba mu matale ko ku xool moom jëmmam ji rek ak soñu la ndax ak taalibe dong dong dong dong dong la kon comportement yooyu nga xamante ne bii ñu ngi ci moom ak dal gi ak teey gi ak mën bëggal doomu aadama na fexe ba nekk ci mboolem mbokki taalibe yi maanaam ñu dem ci dal ànd ak yar ànd ak i teggin te xam ne Touba barab la boo xamante ni bi des fee faa war a defaroo kon képp koo xamante ni bii am nga sax ak càggante donte càggante googu lu dul màggal sax war ngaa góorgóorlu mu dem ci yow na nga fexe booy dem ca màggal ga mu doon sax loo xamante ni bi day négandiku ci yow bu ko defee ñu dem fa ci dal ci teey ci yar ak teggin te la fa sëriñ bi woote mooy ñu santale ko yàlla ñu nekk ci bu baax a baax a baax a baax bëri na nag nu ko mbokk taalibe yi ak ñi war faral di waxtaan nuñ ko tënkee waaw wax nañ ne jaamu yàlla la ak berndeel doomu aadama yi kon jaamu yàlla ji bu ñu ci kenn man duñ man ci jàng alxuraan ak xasaay di sëriñ bi nañ ko def yàlla nañ ci ay salaatu ala nabi nañ ko def gan ñi ñu fay fekk it lu ñu mën ci teral leen lu ñu ci yaatalal leen génn suñu néeg ak lépp jox leen fexe bu ñu mar bu ñu xiif donte sax loolu defe naa ni amu fa waaye daal lépp loo xamante ni bii daal aju na ci bis bi rek mbokk taalibe fee dem nañ ko bàyyi xel te fonk ko bu baax a baax te euh, bi bi moo tax mu woote ne nañ ko santale yàlla dañ koy santale yàlla nag war war nañoo fexe ba cant googu doon ngeen gi cant kon loolu daal la ñuy suñu bopp ak ñi nga bi xëy na noonu lañ sant na la gërëm moom. baarakallah ñu leen sant bu baax di leen ñaanal yéen sama borom kàttanal leen ba lii ngeen tàmbalee buur géwél moom sama xarit la bu yàgg sama borom kàttanal leen ba fi ñu dégg télé yu mag yëpp ñu dégg leen fa barke borom màggal gi. force la mënta ñàkk buñ ma sànnee benn panneau gàmmu bu jotee Cheikhul Khadim day génn ci njëriñ. yor ga ci loxol boppam di ko séddale ngir di ko màggale rasulullahi màggal yàggul nit ñi di ko waaj yàggul danga daa bàyyi ba suba la màggal rek nga jël say bagage dem waaye bor ba mu lebaloon rasulullahi faaw murit i fay ko ko mooy safar te avant premier la day déclaré màggal la ñu jëm kurut Cheikh Ahmadou Bamba amoo fukki fan ak juróom-ñett Serigne Touba rek am fukki fan ak juróom-ñett benn panub safar ba tey murit yaa ngi tànt di rënd ay nag di ko sant Serigne Touba. ngeen def ko dem wax ko sëñ tubaa sëñ tubaa ñëw lu nu war a def lu dul lu ko noonu rek la tëddee da di am na loolu bu nu dalee rek dootuñu fi bokk ndax boo amul lu dul lenn danga koy waggar te téye ko te li nu doon suñu digganteeg sëriñ tubaa kii nu ko def. maa ngi siyaar ñëpp di jéggulu di ñaan ci darajay Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh du Moustapha yal na ko yàlla yàggal àdduna di ñaan sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi toog ci toogaay bu maam Seeraay ma Fall yal na ko yàlla yàggal àdduna waaye noonu la ñuy ziare sëriñ Babacar Sy Mansour mi toog ci toogaay bu Cheikh Seyda Aji Malick ak ku sol saw daal te islam tax laa jóg yal na yàlla defal la sa bëgg. di sant yàlla bu baax ci jotaay bi di siyaar sëriñ musaa Gueye nu ngi koy séen maa ngi siyaar sëriñ su moom Cheikh Ahmad ibnu Ousmane Karazi Noreyni mi nga xam ne nii sa borom dogal na nga tudd ko léegi. li nga wax rek di kenn li ndax Serigne Touba moom ku la ko gën a waggar moo la gën Serigne Touba ku la ko gën a gëm moo la ëpp sens ku la gën a bàyyi xel Serigne Touba moo la gën coow leeg yuuxu yeeg yooyu yëpp Mbacke sëñ Xuddoos lay nuyu noonu Mbacke Balla Mbacke Balla waaw Mbacke Balla kooku bi ko waajuram di woo naan ko dama bëgg ñu liggéeyal Serigne Touba boobu ñoom ay tuut tànk lañ Cheikh Modou Kara moom xam na kii toog ci sées jërëjëf Balaye Sy lii rek ak jàngale la Serigne Khoudoss Cheikh Modou Kara Mbacké noonu Seydina Ousmane Thierno Fati Birahim Fati Isa mi boppam kon bu raamee joxe addiyam boo léegi teloon ay loxoom yàlla na nag ci noonu Balaye Sy nu ngi lay siyaar ci pencum boppam jërëjëf Mbacké jërëjëf Mbacké noonu rek la def ba génn àdduna ndax sunu ruugi lañu jël jaay ko ko bu du woon moom fii la jaar di mandi ak a 15 bim nuy fekk fam nu fekk ku nu fa fekkoon ba nu fa ndey jëriñoowuñu bàyyi jëriñoowuñu ñuy taxawaalu su demee ba def nu nii du nu ko yemale ku yàlla bind jërëjëfati Mbàkke jërëjëfati Mbàkke sëriñ musaa nu lay siyaar bu baax Guèye gis naa fi léegi sëriñ musaa Fall romb ma ànd ak sëñ lay Ndiaye day nit ñu yàlla baaxal waaye kii sëñ Fallu baayam sëñ Maas bu murit yi demee màggal Touba dem màggal yi murit bu dem dugg Touba da ngaa war a wax jërëjëfe sëñ lu sëriñ Touba daa woote màggal gi waaye wootewu ko Touba dana kaay leen santale ma yàlla waaye ku nekk fa nga nekk bu bés bu jotatee dee ma santale yàlla sëriñ Fallou bàyyi soxna Faati 45 la toog 46 47 mu tàcc loxo yi ne ma ñëpp fekk Touba. dëkk bu toll nii ku ko am nu yooyu wooteel bis bu toll nii nan ko fi nga ne te wallaahu yansuru nii wal xalqu tatbahu nii fil bari wal bari sa nafin bila darari dëkk boo xam ne nii jàmm fay dugg njariñ du lor dugg war nañ faa sant Serigne Bamba moo tax ku dem Touba màggali war ngaa sant Cheikh Mamadou Fadal sa baay Baye Makhtar Seck ma ca Louga xanaa xamoo woy wii mu siiw nii ñëpp di ko woy Baye Makhtar sekk nee ne bi ma koy woy àdduna taxut li ma lay wax nag taaw Baye Makhtar Seck soxnaam mook sama soxna noo bokk ndey xanaa xamoo Baye Ablaye Niang sax falfale lay wax mbindum Baye Makhtar du loolu maa gis mbind ma dane damaa bëggoon bu ëllëgee yomal xiyam kaab taxaw nii asaan taxaw nii bu seyri taxaw nii sëñ Bamba taxaw nii jàkkaarloog Rasulullah su boobaa man Makhtar Seck ma taxaw nii jàkkaarloog sëñ Fallou Sanwaaja ñu ne ko Mbàkke la koy wax mu ne Cheikh Mouhamadoul Fadilou yow yaay fal di follee tey jii ku la neex nga fal ko muy fale mooy saayibul fuddala wal fadailu ma lam yahwi ahadun ku dem fa moom xam ne mooy saayibul fuddala Serigne Fallou raw na mboolem ñi fi yaaram ci wàllu gune soo ak béy ak fooree ak naari laajte nan la maamam sérif la bun sérifun sérifun tuuma jubluwu la du xotti sahir du tas du daw ko laaj ku laaj may la nga géejël Fallou xam nii la ana Mamadou Muxtaar Seck maa la ko way yow cheikhu nal fadlu yaa moom lor dem na xéewali baawante dootul jeex abadan ku sopp Serigne Fallou na jóg taxaw nu màggal Serigne Fallou nga taxaw ne jërëjëf Serigne Fallou waaye nag li mat bàyyi xel gaal gaa ngi nii teer boroom gaal gi jël na gaalam sëriñ Bassirou yeeru gaal gi Serigne Mountakha Serigne Bassirou boroom gaal gi jël na gaalam dama ne la 2019 la lépp yi neuf ubbi nañu Masaalikul Jinaan lépp ay ubbiku mun taxaa dañ koo ubbil solo Masaalikul Jinaan mu ñëw ubbi kaso yi lu mas a jafe nit ñi sëñ Tuubaa la yomb bi ak Ahmadu yi ñëw daa fekk islam jooy yëkkat génn gàddaay ba fépp mel ni làmbaay maa mi soxna faytine naa ñaan ci barket jii li maay safi ku lu jii li maay ram mu xarnu bi indi nii sëf leen ma jóor leen ma dinaa ko jaamu ne leen Moustapha nawaytu maay jaddudu sunnatuwal xaraawa indi ahmadu jibi lu yeesul lu màggetul kenn du ko yeesal bi sëñ Tuubaa dikk daa fekk islam màgget sëñ Bamba ko yeesal defar ko ba mu baax ñaar yi baat yi xale yi defar waxtaanee dalul leen defar ba mu baax ak moo ko yor maami soxna Faati la dal bi islam sàgganee sëñ Bamba ko defar ba mu baax moo yor lépp islam ko ko yoroon ku dul sëñ Tuubaa mu lakk la xanaa xamoo ne géwél yaa ngi taasoo loo xam ne nii jigu leen am ñëpp taxaw ñu naan xam ngeen ki nu woo du pour fii pour àllaaxira la bu nu jëlee saat gàcc ko ci jaanama yàlla teew malaaka yi teew ñu ne xam ngeen kan lañu woo ñu ne maam maami soxna Faati lañu woo woo ngeen gor woo jàmbaar woo bete bete kii la maamam di gor di jàmbaar di bete bete sëriñ Touba xali momar sali siin ba maam jaare bu sama ca Poroxaan bete bete la ak gar def na fi lu ne te kat ba nga dégg dëgg maam Cheikh Issa Diène la yàlla may taalibeem bu faatoo fu mu nekk te neexu ko mu dugg fa jël ko yóbbu ko àjjana ca nekk te kat kii ma lay wax emprunté la ci Serigne Touba. et Serigne Darou Assane Ndiaye daa fudd Serigne Touba ne ko lan la mu ne ko damaa bëgg bu ëllëgee nga may ma maram murid yëpp ba mu des ñu sant Mbàkke ma rusale ko te Serigne Darou Assane Ndiaye kat emprunté la Serigne Jéeri waa tudd na suñ Touba fukki doom ak benn. danaa toog ci daan ba yàgg mu jékki-jékki ne a ah, sama sang baa nga nee jóge ca garab ga mu doon jàng alxuraan ma nga nee jëm ca garab ga muy jullee tàkkusaan te nekk fii ci néegi waadaan sëriñ jëri waadaan waaye emprunté la mais maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina Cheikh Ibra xat a jàll Cheikh Ibra innakal kamal wa zanta xalil jalal Ibrahima Fall lam yazal yuxtiri xaaba fil azal atasamata fil ma ramal ko te nag léegal mal ay ne ay ne ne nag man sàkk fi Ibrahima Fall wa fi tarixil kamal il lam yitub li sa jëra boo dee dem sawara te Seex ba nga dégg dëgg ji bi am parante la e déggal sëriñ Mbàkke Madina borom Madina ak bombaleeg ci jorof borom ñaamar bàyyib sëriñ Ibra ñaamar daa génn àdduna ñu tëral ko sëriñ Abdou Lahad ne fukki sàpp yi ak ñaar ku toll fële seen ko yàlla jéggal la ci daraja Serigne Mbacké Madina ma jooy la alxuraan Serigne Mbacké Madina ma ku la deeti jàng yaaka waaru ma jooy la weeru koor Serigne Mbacké Madina ma ku la deeti gunge ak a teeru mais jibi xam nga lu garaaw Serigne Mbacké Madina sët la sët la garaaw eh pour mu gàtt soxna Faty nee na lii ngeen def bu ngeen gisee mu ñëw moom amul ittee ci lu dul Serigne Touba te lu ne def nañ ko ci marché bi waaye demu leen këram yëgalu leen ko ko mais ngeen di safar mu fi Serigne Touba ngeen def ay bernde bu dikkee toog day couleur bis bi day taaral bis bi waaye nag ni ko yëgee ak ci ni mu gàttee day mel ni gudd na ci moom ndax xam na ne insha allahu rabbi murit nañ safar te ñi fa yóbbu reer bari na te fii mu toll nii tembe bu doon kuy sonn xol xol mooy sonn te xol bi du sonn ci Sëñ Touba. waaye benn panub safar ba léegi noppaluwul te alarba da doon safar buntu këram dañ koo fanaane xëy dem fee ñëwaat nii bu subaa am na ñetti safar yoo xam ne bu ci nekk dina fa toxal jëmmam ji te bu dimanche nu takk uti Touba fa séenee sant Cheikh Ahmadou du Khadim Rasoul tal wii lii rek la te billaahi léeg-léeg euh, Mbàkke yàlla nga gudd fan xanaa xamoo ne Serigne Touba ne ne yow murit bi bul tuflee ndijoor ñu ne ko Mbàkke lu tax mu ne saaw ma àndeek murit maa ngi cam ndijooram murit càmmoñ lay tuflee nanga bind bind mii ma la wax murit buy dox càmmoñ lay tuflee waaye tuflee ndijoor ahmadu nee na bu may ànd ak yow ci ndijoor lay ànd ak yow te bi muy dem badar bi muy dem ci géej gi ahlu badar la àndal kenn moo leen wax soxna faati bi muy ñëw waa badar toppuñu ko nga ñëw ba tiim ko naan ko nii aka jaar ci kanamam ndax wóor na te buñ noonu sëñ muntaxaa ngi ñëw nga daw te sëñ muntaxaa sëriñ basiiru sëñ tuubaa sëñ fallu sëriñ tuubaa soxna faati sëñ fallu nii rek la tëdde bu doon góor daa bokk ci rang bi moom Touba li jox sëñ Mountakha Touba moo ko jox Touba fii mu toog wala déggoo ma Alaaji Baara ñoo bokk bàyyi moom na Touba mooy sët bi njëkk moom Touba magam kon li jox Alaaji Baara moo ko jox Touba day jigéen ak góor te nag déggal woy wa pendal bu gën tubay la mat naa raamal jaan ju góor ak jaan ju jigéen luggukat ya xàmmewu leen ca jet ya ba mu ci doon boo ko luggul mo rey la ku xeeb jigéeni Bamba doo am yàlla di rekk laay bañ ma bëgg am na murit yoo xam ne ña nga nële bëgg loolu sëñ Fallu marché bii moom marché bii marché bii moom gaa yi lal moom lëjal na nit sëñ Fallu ko lal mën naa jaayee goo nga ne ay sëñ Fallu juróom-ñaari sëñ Fallu wala amut ci marché bi mooy jaay marché bii mooy jaay marché yëpp sëriñ Xuddoos bi muy génn léegi dafa maa jox àddiya jël junni jox ma te doomi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni la gis nga àddiyam ji bàjjenam bee moo ko yelloo ma bëgg juróom-ñeenti murit yu bëgg màggal gu mel ni lem gu nu suukar rek meew na ñëw jox ma junni ma boole ko sama junni muy fukk ma jox ko kii juróom-ñeenti yoo xam ne ku ne bëgg sa màggal mel ni lem gu nu suukar rek meew ñëwal jox ma junni ba jox ma junni jox naa <laughs> ma jox ma junni na beneen junni ñëw xolal juróom-ñeenti murit jox ma junni ma boole ko sama junni jox ko. dolli sa wér Pape Maguette su ma ko nee dama la yóbbante ci soxna si daf ma naan ëppale ëppalewu ma la ci moom doo ma yóbbante demal waaye ñu ñaan ci barke bésam bu daw yaram bi mu génnee woon ci dëkkam bi mu gënoon a bëgg ci àdduna wan ginnaaw Cheikh Mouhamadul Moustapha wan ginnaaw Cheikh Mouhamadul Fadel génn génn bu mu dellu tuwaat la jaayanteeg borom ba ñëw pay bu mu am yàlla la ci boole ba kàlla sunu xol sedd ci turu daayira bi ñoo ngi lay seereel sunu cofeel ci yow kilifa bu mel ni yow nga yëgal ko bis bu toll nii ci tey ci bis bii ci taakusaan. mu yor ci këram mag moo xam màggat la mën ko wan ginnaaw ak figurant yu fi toll xuus tànk mi ñëw ba ci fii ci ñoom mën naa waat ne sëñ Tuubaa rek moo ko doon waaye nag alal li sëñ Modou sëñ Modou ku ma yor di nga am personnalité ndax lu mu am ko doon ne ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ñu ko tuddee personnalité bi sëñ Modou rek ne ci moom. sànq dañoo toog këram am jenn waay ju mel ni man de ko nër mën a toog di def ay yëgoo bi ma gisee soxna si ne ko demal nga woowi téyeer bi mu ñëw ma jënd tissu bi ma la war a ñawal ci màggal gi fay ñëw ci sama xol li ma yëg man ak yàlla rek ko xam loolu mooy doon seen fal doo xam ne ku baax ko ko ndax seen tubaab ñëpp lay dimbali ku nangu ak ku bañ ku ku bëgg ak ku ndimbalam tàbbi na ci yow ci boo ko yëgee ak boo ko yëgee bale sa mbooloo maa ngi nii soxla yi bari na jàngoro yi bari na yitte yi bari na aajo yi bari na ngi ñaar ñu ngi lay ñaan ci barke Sëriñ Fallu ak ci barke Sëriñ Moodu mi nga xam ne amoo kul moom xamoo kul moom nga ñaanal mbooloo mii aajo yi fay fooy ne na nga tàll sa nekkoon ci marché bi yàlla xamal na àjjana pasaale ci bàyyi mu jóob moom El baax a baax a xam nga maire boo gis ay nit ñoo ko fal te gor waaye gor ni yow boolee seen baat ne la yow yaa jiitu ñoo ñoo la moom donc li nga leen mun fayee rek mooy buñ la soxlaa gis la bu ñu xewlee nga dem si ñoom moo tax incha allah fii ñu ngi nekk ci mairie bi ñu xewle ñu ñu yëg ko te amuñu ngànt dinañ si teew. loolu nag bésu mel ni nga xamante ne bésu ñaan la ay semaine ñaan la. weeru ñaan la buñ fi tànk buñ fi def rek leneen la si ñun ak ngëne la si dëkk biñ jiite moo tax incha allah am nañ yaakaar ne fii ak ñu ngi fi yàlla ñu may jàmm duñ ko wuute. sant yàlla parce que Grand Yoff lu ne la leen yàq waa Grand Yoff wax bu ñaaw bu ne dañu koy wax ay agresseur a fi dëkk ay bande fi dëkk mais safar yi boo wëree tey Grand Yoff bii rek amu fi safar safar yu bëri ñu ngi biir Grand Yoff ak démb ak bërki démb waa bërkaat démb donc chaque jour am na safar day wane ne Grand Yoff ñu baax ñoo fi nekk dootina nag xale yi boo xoolee bâche bi tey bu dee 500 personnes lañ 400 ay jeunes lañ jeunes yooyu du ñu bon ñoo taxawal bés su mel ni donc dañuy sant yàlla ñu bés yi day firndeel ne Grand yoo ay xale yu bëgg suñu boroom ñu ngi fi. sant na Seexul Xadim mi nga xamante ne tey à travers moom tey xale yu bëri tey yoo xam ne ñu ngi topp safar yi moom la ñuy roy di ñaan yàlla dafa ñu sutura moom ñu ñaan si safar yi. yàlla nekk njëriñ pour grand fi yëpp nekk njëriñ pour Sénégal yëpp yàlla dañuy béy ñu koy fekkee saa su ne ndax ay moment ñaan la waaw. en bi woote yëpp yiw la ñun kenn waru fa dem ñun yóbbu fa yëwét ndax borom bés bi yiw rek la woote yiw weesuwul nga ne képp ku ma mën a santale suñu borom ak foo munti nekk santale ma yàlla waxul sant ko moom ñu sant la ko yàlla la bi muy dem daa fàtte boppam bi muy ñëwee daa fàtte boppam donc ku mel noonu boo koy wuyu ji fexeel ba wormaal bërëb bi bu demee pour màggal demal màggal loo am yóbbaale ndax fa ngay dal sax ñee nañ fay dal ni yow te ñépp xam nañ ne Touba bu xewli kër gu nekk day bari gan donc man li ma bëgg ñu koy def ñu bu ñuy màggali bu kenn xeeb sax muusu ndox mu ndongo yóbbaale ko ki ngay ki ngay dalal pour jàppale ko si bés bi te bu ñu demee yi ñu xam ne dëkk bu sell lañ dem liñ fay aay ñu bañ ko fa. même ku dul sëñ Touba mënoo ay saxaaba nga mënoon a wax xalifa Omar ku ko gën di njàmbaar amul dañ koo faat. Ousmane dañu ko fat Ali dañu koo fat seen ginnaaw yëngu yi bari seen jubaana lislaam la koy yeesal du tuur deret ak rayante wala mu dégg ñëpp dana mokk te dara du yëngu man bi maa koy def boobu ñu yàlla lislaam lu tax nga bëgg adressé waa këram lislaam ji mooy sama diine wa afdalul wara imaami rasulullahi laa teg sama kanam kon saa yoo jàppee ne Serigne Touba dafa juum ci ni muy doxee bul jàpp ne Serigne Touba daal juum kon ne rasulullahi yi ni muy doxee doni te rasulullahi du juum lu rasulullahi def yàlla wa innani raditu na si matu taxara Serigne Touba perkal bu sell la yàllaa ko laabal yéega cax ca kaw ngir bëgg sëñ bi tax la nga wiccax ci say gët lay jël si sa kanamay ñaaw say bët fattu du tee sëñ Tuubaa nag tàlloo ca kaw ji kenn mënu ci dara kenn mënta gàkkal Serigne Touba kenn mënta gàkkal Serigne Touba diin Serigne Touba yi dafa wax ni yabut uluma diin xatti mujaddida li nahji nabii bil xatti idras mu moom Serigne Touba nee na sama mbind mii mooy yeesal sunna sa rasulullahi te waxtu yu may bind bind bi fekk naa yoonu rasulullahi rab waxtu bi yoon wi rappee sëñ Tuubaa moo jóg ndax sëñ Moussa Ka dafa wax lu mat di bàyyi xel sëñ Moussa Ka nee jëmmi lislaam takkoon nay bagaasam ndax dañ ko doon bundu xataal di ko tas ci ay ruq di ko xatal ba tax ay mbubam di xotti ko ba defi sagar mu yuuxu ca kaw ne maa ngi génn sowu jant man delluwaat fa bàyyi ko woon di Makka ak Madina bu ko defee buy dem yóbbaale alxuraan lislaam kon ñàppoon na ko ko taxaw waaye sëñ Tuubaa moo engagé na ko mboolem tas guñ la tasoon may ñëw man taxawu sa wet nañ may tas nañuy xotti sama mbubb waaye engagé naa ramb sama xeet engagé naa doon xaadimu rasul engagé naa yëkkati lislaam kon lislaam du jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sawu jant fépp mel ni làmbaay Cheikh Bamba daal di ñaar ci berkeb jiili ne yàlla may chafiyan ku la jiili may xaadimu rasul fi sulaami may ramb xarnu bi am niiraani kon engagement la bu rëy yow miy woote diine ba jàpp ne dëgër nga boo ko talee gëmal la Serigne Touba la aslamtu nag gësëm sañoo ba a nuyoo ndax am nga looy xalaat gis nga yàlla sëñ Touba ko def dëggal sa bopp sëñ Touba ko def kenn bi ko góor ne ne jëyi loxo bëgg koo nuyu sëñ bi daa jël ñaari loxom taf ci dënn na ko misli mina shurafa laa yusaddimu mislaka minal kilaab ku mel ni man bokk ci seen sëriif yi du nuyu xaj bu mel ni yow loolu ku ko ngemee def wala ku ko ngemee wax Cheikhul Khadim rek te boo demoon tey ci lettre yi doon bind góor loolu benn lettre bu am bismillahi rahmaani rahim amul lettre bu am asalaamaaleykum amul ñemewuñu ko da ngay tàmbalee ila sayyidi wa mawlaaya lettre bi maa ngi sama sang sama kilifa daal di tudd Paul Marty sëñ Tuubaa képp moo tàmbalee min abdillahi wa qadimi rasul ba muy jeexal mu bind wasalaamu ala man tabi'al huda lettre yaa ngi fi ne fan leer nañu ñuy xaar defe ne da ngay ñëw naan ku ma woog maa ngi nii dox la ñu dem di xalaat ay manoote yu lay manoote yow nga ne cëpp ci moom fu mu dem taxawal borom bi subhanahu wa taala wéetal yàlla rek muy dé kooku yi wéetal boppam ne hadamtuma banaahu kullu man jahat min al fira bi qul huwa allahu ahad sëñ Tuubaa nee na moo leen naral ak sos yi ma fekkoon ci mi ñu sosal ko diina te du dëgg maa ko mabbu ci wax ne yàlla képpay buur qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid tey ñu àndoon ak fii ci BG TV ànd ak yéen ci guddi safar nekk ak yéen ba ci fajar gi gis nañ jàngkat gis nañ tàggkatu yonent yi waaye gis nañu sëtu si Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul yi gis nañ njabootu Serigne Touba gi yëpp may gërëm waa marché di ñaan yàlla taxawaay bi yàlla na yàgg di ñaan déwén fekk nu fi ñu ànd ceeg BGTV waaye ba tey mënumaa bañ a gërëm ku ci mel ni Cheikhouna borom marché Grand Yoff waaye di di gërëm waa kër boroom dër bi di ci gërëm góor gi ndaw di ci gërëm Ilimane borom kenkaayri bu riis boobu di leen wax ni ak BGTV fépp la ñuy dem ñëpp la ñuy jëli ñëpp la ñuy wane incha